asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh faahu wahabu maliki iftahu habli wa suqni kun ana dayqi ajila ajila bimshi ahmad la taqum bi ahkana ashhadu an la ilaha rahmani wa rahmani adal wala tudbisu maskana kasama wal aradi wal hawu bi musharikin yow usmana ajib sallu bi hasan di muhammadin tawfiq allah subhanahu wa ta'ala sama sama amin asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh waaw al Abdul Xadim waa tarbiya ruuxiya waaw baydu akaabi saa'in waa baydu xam ni moo nii ñëpp ñu ngi siyaare xam naa la waxtaan sax baydu xam ni moo nii ñoo ñoo ko gën a jagoo waaye ñëpp mën nañ caa dugg baydu xam ni moo nii nag ñoom la ñoo ko moom tigi moom am ko laajoon ay laaj nu nu nu si di di di di fexe ba ba su sof sëriñ nga sopp ko wala boog sof sëriñ seen diggante gën a neex gën a gën a nawee yett nga nga gën a mën a am connexion ci ci moom ak ak nag ayib yi nga xam ne nit dina ko yëg ci boppam salib bi dina ko yëg ci boppam ba di ci tiit nu muy def def moom laaj bi lënk loolu xam na tontu loolu dana baax lool ci tamalu at mi yàlla nañu suñu borom defal tawfeex tawfeex ba at mi nekk atum jàmm ak salaam ak xéwal ak yokk ci bertin sahir di yokk nag di di wéy rek kon kon ñu tontu loolu ci wax si suñu bëgg bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli wa sallim wa barik ala man xaratahu bi xawlika fastaqim kama umirt wa man taaba maaka sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa jaal bihi sallallahu alayhi wa sallam kulliyati mustaqimatan bima tuhibbu wa tarda kama jaalta ma mada min fi qabla hadhihi sanati taawin anni kulla bu'di sayrin wa bu'di kulli majal taawin anni bu'da kulli sayrin wa bu'da kulli majalin wa bu'da kulli maqamin bihi sallallahu alayhi wa sallam واجعل هذه الأبيات التي جعلتها لبعض المتعلقين تعليما مني إلى غيري وتعلما لغيري آمين يا رب العالمين kon yàlla ñu si doon dugal xaakum jawaaban yadfau lmalaama wa yakshifu lqitaa bisalaama su duwa ne nee nag yéen day kon tontoo ngi nii jël leen tontu loo xam ne dana leen jëñal yeddeel te den te dana wuññi kiiraay gi bisalaamati nag ci mucc bu bu bu ko wuññee it nga mucc nga mucc in astaxassuna an il agdaai wal istiqaamata bi bu iddaai mu ne maan siraaxi sadri mimma wajaba talabuhu man araani wajaba ne day sangewu ci noonu yi ak jub xam ne ne wéra digu nekk ci ci ci cënam deñ ak yaatu dënn li leerul islaam ji dugg ja loolu day war na lool sàkk ko loolu nag nag war googu mi ngi tukkee ci ki nga xam ne moom moo won kiimaan yi te mooy suñu borom wa man yarum xaafal yu raay da nisaam soxla loolu moo wax nag na na nga sàmm moo woy wii yabus biha wa bay siwaa min sàmm kon day kon day da nga am yooyu te da nga am yeneen yu mag ci jiitu mooy saxix maqaamal adabi almardiyi fi sirri wal jahri ma al aliyi na nga na nga na nga wéral maqaamam wàcc waayub li ñu tuddee al adabul mardiyi te mooy nga yar bu tedd ba yar sa sa xol yar say cër yar sa xel ci ci sharia al islamiyya fi sirri wal jahri ma al aliyi ci lu dëbboog lu feeñ ànd ak borom bi nga tegginu ñu ak sa borom tegginu ak nit ñi boobu ni maqaamahu ala aslin maqaamu alumari nag soo ko bëggee tabax na nga ko fondement ci ñaare wos yi bina amur taqin ilal fadle ni ci ci ku kuy tabax yéeg waayu jëm ca ca ñaari ngëneel ya awaluha wos bu jëkk mooy awaluha marifatun bi azama zatil jalili zaatuhum azama na na na la na la cëng ne yàlla na la cee na la cee ne nga xam ne yàlla màgg na jëmm ju tëdd ja màgg na saatil jëlil yi waxu jamil de jëlil la wax borom tàngoor wax waaye nga xam ne màgg na zaatu mu asaba jëmm ji màgg na tëdd na wa thani ilmuka bi anna nafsa xasisatun bil aabi tabqi xafsa nga xam ne nga xam ne bakkan bakkan lu ñàkk solo la dañ ko bind ci ñàkk solo nga xam ne moom moom lu bon lay soxlaa wa naara taati rabbika mahat uyubaha fa hiya isan xata bi xat bu dee bu dee nag dangaa jaamu-jaamu ba ayibam yëfar kon de moom mu daal di tonawu fashkur ilahaka ala ci ka niam bu yàlla dimbalee ba ngay jaamu yàlla ba inal xasan inal xasanaati yusumu na si aat ba sa taq-taq yëpp set nag na na nga ko njukkale yàlla xéwal yooyu kat fi ne ko xayru mujj bi na am moom mooy koo xam ne saa boo ko woowee muyu la ko farax bi na ni amati alim alayka atat bila wasnika loolu boo ko amee moom nag nga xam ne yàlla la ko jox de jay la wuji kenn nag bal min hujaat ka bi istihaq takarruman uskuru bila shaq nga xam ne moom nag bu muy dikk ci yow nag yeewoo ko de dala ko dala ko teral rek kon nanga ko njukkale nag te tegul xëccoo suba man ahabha wansurat alayhi wa hiya ak xat day sar balaa nga nag koy jàmbat ci nuñ jikko yu bon ci moom yu muy yëkk fekk na kat am na koo xam ne bu ne woon siiw mel ni moom wastamilan xiina idin xusnal adab kon nag bu baan nanga da nga jëfandikoo rafet rafet te teggin bu la yàlla saraxee nga xool sama moroomum jaam gis ca moom safaan ba nga xool sa bopp gisoo ko ca soo bàyyi nee na nga sant tadaw soo gisee nag sa moroomum jaam nga gis ci lu baax te gis nga xool sa bopp gisoo ko ca nan na nga dal di góorgóorlu def ko ci ci sa bopp bi def xihaabi taxsinin wa ixlaas nu dib ñaare boo boo xasee am yooyu nag nag tuwaane na nga koy ñoŋal na ngay góorgóorlu sangee ko ba dara du ca dugg wa ixlaasin nga lépp mu jëm yàlla ja loolu kon ne soppeef na ko ja boo xasee am am loola ba noppi nag soppeef na nag nga di ko gën a ñàkk di ko gën a taaral di di di gën a sellal wa daf yëgal aafaati an xaa washada fiha xusuuraka wa fi lagas hada na na na nag bépp gàkk gàkk bu ko bu ko jegeen na na na na ko dàq te na ngay na ngay seede ne foofa yi kat gàttan lu nga lool ci moom mënoo ko matal la ca war kon nag nan na nga dëddu nag bébant waye isan faaqal ibadati ma siwa bururin ma xawaahu jama mu ne lool day moom moom kawe na lool jaamu yàlla yi yëpp waaye lu nag ngay ngay yiwéne si diggante ak sa waajur yi loolu moom lu koy moom wa tafus bi niamatin kay ne li sixaatin aw risqin bi xëyri xawli su yàlla saraxee nag nga am wér am wërsëg ci lu pexe de am wax ne lu pexe du sa pexe de la xawla wala xuwwata illa billahi alisim pafraxa biha naga ca bég ndax loolu loolu mooy njukkal ko faraxa shukrin ñu mbégum njukkal ilma bi annahu bi man kafaaka zulma ci xam ne yàlla la jóge kat jóge ci keneen bul ne mukk mi ngi jóge ci diw bu ne suñ bambaa ma jox di wërsëg bu ne suñ suñ duwaa ma jox nangam bu ne diwa ma jox nangam nee naa ni yàlla moo ma jox ma di ko ma di ko njukkale mag magal gii ñëw lu ci waaye di ren di na ko ren di ngir ya ngir yàlla sant la sëñ Tuubaa boroomam njukkale ko ko waaye bul ren di mukk ngir jëm si Tuubaa kon su boobaa kon ab julli day xaram ci moom mu lekk ko kon tax si ne la adaba bistiaana biha ala taati wal i'aana nan nag rafetal teggiin ci xéewal yi ci dimbandikoo ko ci jaamu yàlla ak dimbale keneen ba tani ban sarfaha li maxsi ay waaye nanga moytu nag mukk rek yóbbu ko ko ci ci amu yàlla fa daaka gufraan ko fiital maxsi loolu kat bu weddi yàlla la yàlla ni ko sax ba dam fi nag nga di ko mooy yàlla bismillah cër yeeg xol beeg xel meeg lépp na ci la bokk isruba mubtalan bi faqrin aw marat wa tamanna daa wala mu yaxi la xarat mu ne ba ndax loolu nga am kat balaa nag ko koo xam ne dañ koo dañ ko dañ koo di ko teg ab balaa balaa boo xam ne mooy ñàkk la wala wéradi la te muy mu bëgg loolu lool nag te amu ko wa man bi dorori faqrin aw bi marat balaa humoon min ngi yaqudu xaradi mu ne koo xam ne nag suñu borom suñu suñu suñu borom da koo da koo nattoo ñàkk wala wéradi moom bu borom nga xam ne moom mooy woomale te moom ay indi lu ma bëgg bilaa balaa in aw idan aw aw garari ci lu dul mu teg ko am nattu boo xam ne mbas tegu ko balaa boo xam ne day rek ngëmam tegu ko ay noon tegu ko ko waro tegu ko aw fitanin aw madin aw darari tegu ko fitna tegu ko wéradi tegu ko lor waaye daal waaye daal moom te te teg na ko yenn ca yooya kon su boobaa nu nu nu nu war a def benn ci yooyu dong la am fële si mu adaba bés ci baar yi mën a rafetal njortu rek te muñ wob yëre daan yax wi yëre daa albaar yi gërëm loolu loolu rek day dana ci am ngërëmu borom bi wala sutur jasan wa shikaaya mu suturaal nag yëngu ko mu yëngu di di di beteelu ak di ak di ak di jàmbat yooyu sax mu du ñàkk la Cheikh Moussa waxoon waxoon sama aminte ba magam jeex si sëñ Cheikh njëkk radiyallahu taala anhuma génne àdduna sama aminte taab suñu Mor Joor ak sëñ Cheikh njëkk rakkam la sama aminte it ab taawam sëñ Cheikh sama aminte di jooy ñu wax ko si Cheikh Moussa Cheikh Moussa waaw si li bu dëggee nàcc waaye kon nag na nga sutaal loola kon nàcc ko an xëy man yox nii bi daal ni kaay ko su daal di wëlif nag yow yàlla mi nga xam ne moom moo moo lay woomalal ci ci ci lu mu lay lor wala yushkurillah ala kawnil balaa lam yusid bil iman xiina aqbala nee na nanga ko njukkal yàlla nag moom ci ne moom kat balaa boobu ñëw rek ki wut sa gëm ba ba ba ba mu agsee ba ba mu dëgmalee wala yushkurillah alladi qad salaka maslaka man ahabbahum fasaka moom de danga na nagañu ko yàlla ñoo xam ne moo moo la sóob ci soo sóobu ci sóobu kaa yëpp ñoom sopp ndax ñoom kat ñoom al ibtilaa u maslaku salaama na am na tukkat foo ko fekk mooy yoonu mucc wa mucc bi loxo wal wal wal malaama mooy faral ba ay ayib te mooy da da dàq yëpp di ëllëg waaye yàlla insha allah musal te te jox ñu la leen ñu la tey ba goon ko ci uyu wala ajru min baadi masaiba yakfun bila isaabin indaman lahu rukun ay ay yool yu kawee gat ginnaaw ginnaaw musiba yi rek ci lay nekkoon xanaa ke kenn du leen isaab waaye ci ci masalik ahlul bala laysa lahum misaanu wa laysa yunsaru lahum wa laysa yunsaru lahum qadan diiwaanu borom balaa yi bu ëllëgee bis penji kenn du leen isaab àddina du leen dugg kenn den tegal ay kayit naa leen ay ay ay ay ay kayit naa leen lii nga defoon li li li jégal ngeen ko oh daane baxdal masaibi yadoomul ajru mu ne ginnaaw ginnaaw musiba yi nag pay ga day sax wala si waa saabir yéen ku sajuru ku mujj nag kooku lañ jeex ji waaw parce que isa saabir fu musiba na ko su borom waxam watu si ni adaba indel basti waaye nag su nag am rafetal teggin na nag indil bas bu xew gi ñuy ne wala ngaan wala ngaan nag li rësqe fii mën fi xam sax si ci nga cay joxe nag bañ a koy watadxul watadxul lillahi bihi wa taksifi doon bihi an fuqara yatkasifi na ngay ñaan ñaan jëme ko ci borom bi ca loolee yàlla saxal ko gërëm ko te na nga wuññi nag lor joo xam ne gis gis nga ko ci fuqaraa yi nga xamante ne gis nga ne soxla nañ dara nga jox leen ko wala sa alal na aafiyata daarayni wa bi jamii usbi al-aayin mu ne na na nga ko ñaan it nag jàmm yi adduna ji ak alaxira ci borom bi xam ne mooy aljamiil na nga ca muslu ci toxte gi adduna alaxira وبالذي لك احتمى عن تذبب فإنه الأدب كت كت كت كت وبالذي لك احتمى عن تسبب أدب كت كت تتبب lépp loola gaar na na na nga sabab lu mu dee bu dee ñàkk la bu dee wéréd la bu dee noonu la lu mën di doon ni ko tëtëb bi ni ni koy fajoo wa taskurillaa ala tamkiini minhu wa fihi idnu wa taskiin na na nga sant yàlla yi nag ci yàlla nag dafa la tamkiin nga mën a dal lu lu man di ñëw neex a naqari du doo yëngu loolu lu ndigal la te loolu ak dalal la askuru ala firaqil balaa suñ bi ne maa ngi ñu ko yàlla ci kon ko loolay magal ga ci bu ma taqali ko balaa xablu wóorum tubit na bii taqabula kon kon kon kon kon loola maa ngi jaan ci ci ci daraja yéen bi salaam yàlla na ko ma ah ahmaduhu maa ngi koy sant di ko tagg di ko tagg di ko tagg ci turam yu tedd ya di ko tagg ci di ko njukkal di sugri ci sama jëmm ji saa salaat may julli ci moom alal la si saaxa bii xulaat yi nga xam nga xamante ne woob mën na samay noon ilaa si waaye si waa maxteel yi walif walif walif ma ak walif li ma li ma tànnal fi abadin waxat naxaa tabsib li mbi faw nag te mbég day jublu na ma subhaana rabbi ab kon kon loolu kon leer na yàlla na yàlla dina la defal xakum jawaaban yëpp soxna malaama yàlla ñu yàlla defal ñu mujj ci ci yeddeel wegg si xataa bi salaama te mu te mu dil ñu dimdil ñu yi laay la ñu ànd ak mujj salaamaaleykum salaamaaleykum taala